hello guys yaxay hmm. tàmm ngeen ku am ab dëjam am naqar ngeen di jaabante di dem di ñëw di toogaanu dëj ba jeex na ku nekk na nga ñibbi sa kër toog ça ne ngeen di fa dem di toogaanu nit ki muy togg ay añ la ngeen ko jaxaloon yépp mu toggal leen ko ngeen ne ko dariix lekk ko ba mu jeex jaratu ko nit mënta boole am naqar jeexal xëy na kii sax euh, yàlla def na dañ ko rey waaye am na ñoo xam ne dañuy feebar ñu faja faja faj ba la ñu yoroon lépp jeex nit ka faatu ngeen bëgga ñëw dëj ba di ko tooga yàqati bu laa lu ngeen fay lu ngeen fay lan ngeen fay toogati di kaa di duul di fen di day di nettali ki dee soxlawul loolu ku nekk na ñibbi sa kër toog sa kër jaratul toogaanu hypocrite naa naafeq te bu nit deewee ngeen di ko toogaanu ku ne di duul di day ku dàq fen nga ne li ngeen di wax te duul fen dellu leen seen kër yi te toog te may nit ni jàmm mbokki ki deele reposé wu awa waa baax na